di leen siyaare te di leen balwaax tey balaax ñëpp tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di ñaan yàlla yëpp daje ngërëmal sëñ Touba di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi te wér ba mission bii nga xam ne ci lay nekk di ca dox te sëriñ Touba teg ko fi jiital ko fi tànn ko yàlla na yàlla dogal mu mottali yéene sëñ Touba jooju mu amoon ci liggéeyam bi nga xamante ne si tey moo nekk ci bopp bi di xalif général di kulu murit mu mel ne nag am na lu ma dégg loo xam ne ci aaya alxuraan bi laa koy teg ndax alxuraan dafa wax ne in jaaun fasiqun bi naba'in fatabayyanu saa yu ab kàccoor jëlee ab xabaar andil leen ko teg leen ko bu leen daal di sujet na ngeen gëstu xabaar ba ba am ca lu leer door a yëkkati seen kàddu soo ca amee lu leer nag dañ koy delloo ci man raa minkum munkaran fal yuxayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa bi iman boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne boo gisee loola naqari te muy doon lu naqari di don luy tasug mbokk di don luy yàq ab société ah na nga ko faj sa doole ah soo amul nag nee nga reetat ko ci sa làmmiñ soo ci sa te jëriñu ci dara nga naqarlu ko ci sa xol yàlla dogal na am nañ mën nañ ko te danañ ci wax ba jeex te ci kemt lay kattanu xabaar bi ni ñu ko déggee ak wax ya ca rot foofee lañ bëgg a àddu sëñ Muntaxa mii képp ku jàppe sëñ Touba ne mooy sëñ Touba da nga jàppe sëñ Muntaxa mii ne mooy xalifa général des mourides teggin yoo xam ne boo gisoon sëñ Touba jox ko ko bu fekkee li wax dëgg la teggin yooyee kenn ku nekk mën nga ko jëflante ak sëñ Muntaxa yar boo xam ne boo nekkoon ak sëñ Touba wan ko ko tey boo nekk ak sëñ Muntaxa yar boobee dara waru caa soppi ko ab yar ak i teggin nag dafa nekk loo xamee ne que nii képp ku ko yor foo toogate yónnent baa nga fa foo toogate sëñ tubaa nga fa yàlla waxi na ko képp koo xam ne nag amuloo ko foo mën di nekkit na nga xam ne saytaane fa kàmpe ndax yoo ñaari élément yooyu képp ku ko amul di doomu aadama foo mën di nekk doo fa gis yàlla doo fa gis yónnent bi doo fa gis sëñ tubaa murit yëpp nag amati nañ lu leen naqari murit yëpp nag amati nañ leen naqari ndax yoon wi respect bi ci daan daw ak wegeel nga ci nekkoon ak njàngale mi sëñ Tuubaa mañ daan topp li ci des léegi bëreetul lu néew a ci des te loola dara jiituwu ci la ko fi indi mooy yilif sa bopp ànd ak seytaane doo am kilifa ku dul seytaane te sëñ Tuubaa daana wax ne na ngeen am kilifa na ngeen am kilifa te nangu kilifa gi yilif leen ndax sama jëmm ji dey su mënoon a su ma ko mënoon a xaaj def ko ñaari xaaj benn xaaj bi dana yilif morom te kilifa ci ngay mucc bu dee kilifa gu mat kilifa waxuma la kilifa googu nag ci diine la la yëf te daa gën a noppale sax ci aw yaram mboolem yoon wi li ci am ci ay virus kenn teguñu ko lu dul ñu topp seen bakkan topp seen bakkan lu ñu bëgg defe ne war nañ ko mën a jaaye yoon wi lu ñu lu ñu lu ñu bëgg a def defe na maanaam ci tur yoon wi lañ koy jaaye te amul benn garantie rek bu ñu ko teg bu dul rek maa gën a jege sëñ Touba noo gën a jege sëñ Touba mu ne ah mooy sama maam de wala mooy sama maami maam wala mooy sama bàyyi maam loola di dëgg la moom nañ ko màndargaal ci mbokk ak aada gi ñu xam waaye dëgg dëgg mbokk mooy bokk ko dëgg dëgg mbokk mooy bokk ko te sëñ bi waxal nag ko bopp tam ak fu mu nekkul ay waxam ak fu nekk sëñ bi nee na ku ngeen gis ñu koy askane la ci maam maaram la wax bàyyiwul kenn moo xam kenn ku ne sant woo ci sant nee na kooka sama mbokk la waaye nag kenn ku nekk la nga baax le laa bokk ak kon ndekete nit dana yor santu sëñ tubaa wala mu jege sëñ tubaa ci deret te bokkut ak sëñ tubaa jëmukaay te jotewut ak sëñ tubaa dara loolu dafa war a dugg ci noppi murit yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ndax danoo toll foo xam ne nii nag ah wax dafa jot ndax lu ñëpp bokk dees koy bokk waaye dees ko séddoo te li ma jot a déglu ci sëñ Cheikh Fall Mbabor nga xam ne borom xikma la dafa wax ne père de famille mi ngi mel ne. bàyyi bu nekk ci kër jur fa lu mat ñaar fukki doom doom ju nekk bu xëyee na ko bàyyi di ko xoole bëtub bàyyi nee na bu boobaa de kenn koo joxoñ bàyyam mu daw jëm ci bàyyi waaye bu ñu tegee bàyyi ci taabal ji daggat koy morsa kenn ku nekk jël ab morsa nee na kenn ku nekk bu ñu la laajee sa bàyyi sama cëru bàyyi ngi nii rek cër bii da laa amee ci sama bàyyi képp loola nag yoon wii ci boppam gis nañ ne daw na dëgg ma loola muy bëgg koo paacoo bëgg koo séddoo ci ay jegeñaale ak mbokk ak i sañ-sañ ak topp sa bakkan te daray sëñ Tuubaa nekku ci ndax ki nga xamanteni ni dafa ñew juddoo ci yoon wi te bi mu fiy juddoo biñ koy ji nit ñangi taxaw mu dem ba jebbi nit ñi di ko gis mu dem ba màgg ne leng nit ñi di ko gis mu dem ba ami doom nit ñi di ko gis bu ñu bëggee jël benn car rek ne dafa déranger dagg ko ci garab gi te garab gi jëliwuñ ko fi dara du sat waaye nag mbir bu demee bu ëppi loxo ah kenn du ci man dara kii nga xam ne moom nee naa woon dutuma wax ci moom waaye damaa joxe woon condition yi ma dul waxati ci moom mooy dama ne woon tànk gisuma lu jar wax ci moom dutuma wax ci moom te la taxoon may wax ci moom it li féeg mi ngi koy laal may dund danaa ci sama kàddu muy kii ñuy wax ay di jàllo mi nga xamante ne si ci seytaane lay dox dama koy wax encore une fois ci seytaane lay dox ndax dafay bëgg a indi lu diine eh, eh, diglewul indi fi lu wuuteeg mbindam sëñ bi bëgg koo taxawal te muy saytaane képp mu bëgg koo samp ci biir yoon wi ah di ko tuddee kenn ku nekk nag nga toog ci sablal ne fagam di toog te naan sëñ bi mën na koo fajal boppam lii ñu def ci yoonu murid bi yépp sëñ bi mën na ko defal boppam waaye yéenuñu tuyaaba yéenuñu yool bi moo tax mu jox ñu ay maye jox ñu xel ñu mën koo def ba ci jumaam ji nga xam ne taawam bu tedd ba moo ci taxaw laxasaayu liggéeyal ko te taxawul taxaw rek sëñ tuba mën na ko kon nag su fekkante ne borom këram génn na àddina yàlla na ko yàlla yërëm ndax taxawaay ba ca sëñ Muntaxa taxaw taxawaay mënu koo gën a rafet ci ku génn àddina gannaawam taxawaay bu rafet bu mel noonu kenn mënu koo taxaw lu gën a rafet di sëñ Muntaxa taxaw taawam bu tedd bii nekk fi muy sëñ Saliou Thioune gis nañ ci àddina wërngal këpp mi ngi dox message yi muy joxe wax dëgg yàlla ëmma ci lenn lu ma koy mën a reproché ndax wax dëgg yàlla tegu na ci teel bi ndax la muy jiital rek mooy man damaa am kilifa te sëñ Muntaxa mooy sama kilifa te lam ma digal moom laay def kon kooka du ñu mën a def lu dul di ko ñaanal waaye nag bu fekkente ne seytaane ñëw na bëgg cee dugg yorub musóoram yorub xeesalam yor ay tookeem ñëw ne da koy dugal ci biir yoonu murit murit bu toog di ca seetaan murit booba na nga xam ne seetaatal sa bopp te xam ne loolu ngay seetaan pour nga mën a liggéey ci sëñ Tuubaa liggéey bu jub nga gis seytaane ñëw te amu ci sax aw yoon waaye ñun ñi nga xam ne ñun ñooy sàkku ci sëñ Tuubaa aw yu te bëgg a gunge sëñ Muntaxaa mi ci liggéeyam bii mu réussir ci ko setan mukk dara di ñew di jema xajamal xilaaf ak sëñ gi ta gi kat mel na ne am ci ñoo xam ci si nañ temm pour xajamal ko moy ñi nga xam ne dañ ko jege te duñ tënku ci digal waxumu laag nak comme sante yi nga xam ne sëñ Tuubaa na ne kenn ku ne la nga bax la bokk yow kon bu seigne muntaha yëkëté kaddom wax ko ci tuddu yoon wi wax ne képp koo xam ne si wuute nga seigne touba am ci aw doxin wuute nga njàngaleel seigne touba bi ñu teg la ci yoon nangu tegu duñ mëna def lul sànni la ci seen bët loolu ñëpp wax nañ ko kon loola lan moo ci jaraat benn nit teqe ko moom képp booba ba léegi ñuy xeex li ci jot a des ñu defee ne lekk du am dam ñu dellu dem di xambaat taal bi ñu teg ko nag ci ay wax yoo xam ne si kenn mënta xam wax ji waxi naq si waxi waxi lu mu doon waxi naq sa kënnañ audio baa ngi ni da ngeen ko déglu ki ko wax ñun dañ doon dégg waaye ñemewuñu woon a yëkkati kàddu bi ñu demee ba dégg ko ci kàddu boppam nag am nañ droit yëkkati ko mom da neena ay da jàll ab talib la te sëñ Muntaxa nee na képp koo xam li sëñ bi doxé doxé woni da nañ la sànni ci sen ba sen dal kaddo ma gëna jot yépp kaddo ma gëna bax yépp kaddo ma gëna for yépp kon nan la gënal kaddu bëgg joggé di téggu teguwaat ci kaw kàddoom ci intérêt bo xamni intérêt personnel la te du luñu diiso du lu wax ak yoon wi du lu am digal duñ def dara tala tafalu say an bi xëy na fal is na fi xabali sax ni dama ne mbir bo ci dugg di yaakaar ne baax na la wóor na li ngay def baax na moo ko gën bu fekkante ne da ngaa bëgg a wax ne lu baaxal a tax di def lu baax kenn du ko lëndëmtu lu baax kenn du ko dox guddi lu baax bëccëg lañ koy dox mu ne fang ñëpp mën cee jot ñëpp mën cee am njëriñ waaye lu baax loo xam ne si dañ koy yot dégg nga dañuy soppi ay oto dañuy soppi ay téléphone te moom lam nasoon deltuwu ci gannaaw benn yoon te sëñ Muntaxa la lam waxoon leer na ndax yàllaay kiy jéggale nee na bis bu taxawee dama public wax na lii muy def bàyyi na ko bu boobaa moo jéggal boppam bu boobaa it moom day am droit di ko boobaak léegi nag ñu benn message bés bu set lañ ko doon tere ñu di ko gën di xëy di ko gën di dolli ñoomee tamit ñu yor seen xaalis fas yéene taxaw ci képp kuñ jàpp ne man nga leen a jàppale ci mission bi ñu ñëw jël la ñu ñëw jël la nga dem ak moom lijjanti bëgg a taxaw ci kaw askan wi di lay loolu du mën a jàll kon boo taxawee na ay da jàll ab murid la comme ñëpp dagg sëb cër jox ko ngir alal loolu dañuy dellu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon yonent bi def na woon ëllëg gi day tiituma ci yéen ngeen dellu nekk yéefar tiituma ci yéen ngeen dellu di bokkaale yàlla waaye la may tiit yéen de bu ëllëgee mooy ngeen alal ak àddina ak daraja ñëw tàqale leen te loola gis nañ la ndikk na mbooleem lu fi yàqu rek alal la ko yàq lii ay da jàllu def rek alal la fi jaar bu fekkee ne nag nee nga da koo yéene aw yu aw yu boo ko yéenee tam wóor na la lu baax la jërul dox guddi yëkkati ko devant public wax ko sëñ Muntaxa institution mouridisme la ñepp ko bok kenn du ko akimo ci tok di gisee moom ci rox ta lo beugal beugal beugal beugal ay dajàllu kaddu bëgg ko yëkkatil kaddu wala nga beugal ko lu baax sëñ Muntaxa nga ko wara gëna yéene te kàddu eh, xalif général mourid dafa for yëkkati ko mourid yëpp seen xel dal kenn ku nekk tëdd fa nga tëdd nga dem di yewat fi di beroog mom ci ab ruq ci sa intérêt personnel lola man la contester lola la ne du deug du yone bu fekkee da ngaa yéene Aïda Diallo aw yiw kooku doxal ko sa digganteeg moom noonu nga ko confondre ak sa Seck du benn sa sekk dafa juumoon te Idrissa ba mu juumee dafa taxaw ne damaa juum Idrissa dafa taxaw na damaa juum kooku bërigo la ci mbartal la boo puusee mu dem boo puusul mu dem kon lam def kon tey ñi ngi door a kon euh, dégg ci saw làmmiñ nga ne tey yaa dox loola te dégg naa ci ñeneen ñu ñoo dox loola waaye la ci ëpp solo moom Idrissa ko doxal boppam kon bu fekkante ne bëgg nga foo làqatu wax na yaa ko dox di dagg ci sa cër di jox saytaane loolu danañ taxaw ci yow alerte la ne la yoon wi moomoo ko sëñ Muntaxa yilifoo ko yoon wi moomoo ko sëñ Muntaxa yilifoo ko ndax dégg naa ci sa wax ji wax ju manqué wax ju sew naa yi da jàllo am na ñuy def lu ko gën a bon ci sa kàddu vidéo baa ngi nii da ngeen ko déglu ñu defee na fu ne ngay daanu nga daanal ko ci sa mbokki bàkki bàkki ñu defee na fu nga koy daanal nga daanal ko sa mbokki bàkki bàkki naan Aida Diallo am na ñuy def lu ko gën a bon te waxuñu ci dara waaw léegi nag ba nga ko waxee ñu defee na fu nangay ngay daaneel nga ne am na fi mbàkke mbàkke yi seeni doom di def lu bon yaa ko wax da waa public man waxuma ko waa léegi bu fekkee lu baax nga yéen ay di jàllo ci sa mbokk nga ko war a tàmbalee bu sa mbokk juumee yow warut sa génn ci sa gibiñ nga taxaw di ko wax di dagg ci sa mbalaan di di daaxe feneen loolu moo dul dëgg moo dul yoon la tax yow doomi mbàkki mbàkki yooyu nga wax ne ñi ngi def li gën a bon ñi ngi naan sàngara tuumaal leen wax ju bon yu nga wax leen ko lan moo tax dogoo ci woon ay médiation ngir tudd sëñ Tuubaa mi ñuy tuddoo ah ñu bañ a gàkkalam leen waaye dégguñu ci sa kàddu nga ne léegi da ngay def lu baax ci lu baax ngay wax di yëkkati di fa gub dënn kenn ku nekk nga wax na nit ñi dañoo iñaan nit ñi li nekk ci ñoom ñoo nekk ci yow nit ñi ay nit lañ ay nit lañ ëppale ci sëñ Touba dara li nga bëggee sëñ Touba ni lañ bagi sëñ Touba bu fekkee bëgg nga sëñ Touba waaye nit ñi ñoom bëgg nañ sëñ Touba sëñ Touba da ku ñuy donnante sëñ Touba da koo xam ne ab ci maye sëriñ Touba topp ay ndigal a maye ak ndigal muy ndigali suñ borom yii kon nag mbàkke mbàkke yooyu ngay tudd di tudd seeni doom di wax naan ñi ngi def lu gën a bon lii loolu da du sëb cër ndax jàppoon naa ne day dox mbokk ba ndoxu mbokk jeex mbokk mi nga bokkal moom nga war a jëkk a dox ba jubóog moom door a dem di dox meneen bokk te lii moom lenn lañ ko mënta jëñ lu dul xaalis ak loo mën a lay ak loo mën a wax lu baax dañ koy teg ci digg penc bi te bu fekkoonte ne dafa nekkoon kooy dox diggante mag moom nga xam ne kooku jiitewul dara bu boobaa lii nga defit kenn du la ci wax dara waaye sëñ mun Muntaxa day xalifa général di kullu murit doom gi bi nga ko waxee ñëpp dégg nañ ñëpp dégg nañ tey dégg nañ nga waxte ci biir kër gi wax ne am na ñu nekk ci kër ga ñoo xam ne si nañ war a def defuñu ko kon jàppal sa bopp na yaa ngi ci biir ndax tey jii de murit yi dañ ko doon déggandi seen xool tàng waaye bi vidéo bi rëccee ba génn tey ji yaakaar naa ne kenn ku nekk dana la attaqué fu nekk te attaqué la ngir sa jëmm attaqué wuñu la ngir sa jëf waaye dañ la attaqué ngir li ñëpp bokk nga bëgg ko xajamal ndab bu ko ñëpp bokkee di lekk kenn amul sañ-sañ jóg ne du ma ci lekk te daa ci xëpp suuf wala nga ciy doxee sa intérêt bopp boo bëggee jaay sa cër lislaam a ngi nii bu la neexee mën ngaa xool nu la neex nga dem di ko def yoonu kenn nekku ci waaye nag yoonu murid bi nga xam ne sañ sëñ Muntaxa mi dañ koo bëgg a wagar ñaanal ko yàlla yàlla yàggal ko fi ndax njariñam lu bari ngay wéetoog moom mu wax lii ñëpp dégg ko te lam waxoon pour kee dellu ca gannaaw kee defu ko nga bëgg ko wutal aw lay bëgg dox ci diggante bi xam nga ne dana la sab-sab te murit yëpp a mer murit yëpp a mer képp ku dégg kàddu gi meral te lii ñi ñëpp ñu ngi koy xomtoo ndax dañuy wax naan liy yàqu ci kër sëriñ bi ña nekk ci biir kër gaa ko yàq ndax mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy dox di dox ci diggante yi ngir seen intérêt bopp te dara du ci intérêt sëñ Touba dara du ci intérêt sëñ Touba ndax sëñ Touba ci ak jub la woote sëñ Touba ci ak jub la woote googu nag képp ku ko def yaay ki gën a jege sëñ tubaa waaye aw sant kese du ci boole kenn ndax maam Thierno wax na ko nee na ko kat sa jikko jii dafa méngoog say jëf bu ñu méngoowul woon kat doo mën a boole bàyyi doom ak i rak yërif leen ci benn kër boo ko defoon it la daloon yónente yi ci ñooñam ña doo nga leen di dal mooy mujj ko sàppi ko di xeex ak ñun dong waaye say jëf dafa méngook say sa say sa jikko kon sëñ Touba jikko lees koy nuru dee su ko bokk moom ci sant ne nuroo na mag moom déedéet manes na laa jox or ma nag ngir jëmi sëñ Touba waaye boo jëful jëfi sëñ Touba it ñu traité la comme nañuy ñi nga xam ne ñooy jëf loola nañ leen di traité yoon wi du yoonu kenn nit yoon wi ñëpp a ko bokk sëñ Muntaxa mooy kilifa ñëpp yii yëpp doon nañ ko séntu te am na yeneen yi ci des ndax njëkkoon nañu fa ñëw gannaaw ba sëñ ba yëkkatee kàddoom am ñu xëtt kàddoog sëñ ba dem alal tax ñu dugal ko ñu jël seeni téléphone ñëw di filmer sëñ bi ak di ko enregistré génnee seeni wujoo tasaare ko noonu murid yëpp taxaw jóg di ree tey jii yow nga xam ne yaa waroon a takk sa digg même bu fekkoonte ne lii ay da def ak jubla ci jublu te muy dëgg ci moom it ne ko man óom um ma jëruma baatu yoon wi naa ci waxtaan ak ña nga war a waxtaanal am ngay bokk am ngay bokk boo waxtaanee ak bokk yi ba ñëpp marché ci tënku ngeen àndandoo dem ci mun Muntaxa waaye yow bo sa bopp kese ànd ak moom changé oto changé lépp ak yam àndal ak lañ la bokkal ngay dox guddi loola boo taxawee na lu baax laa ci jublu man Moustapha Guèye mi mënuma ko gëm kon daal loolu mooy li nga xam ne en même moom laa jot a capturé ci lii nga xam ne moom nga wax wax ne nag Euh, lépp loo xam ne koo xam ne si war nga koo dimbali di gëm ak sëñ Muntaxa doo ca xaar kenn kon nag sa moroomi mbàkke mbàkke yooyu nga yàq seen santi doom yi ak di yàq seen seen seen jikkooy doom yi naan am na ci ñuy naan sàngar ak yooyu ñooñee kon lan ngay xaar ci coog waxtaan ak ñoom am ñooñe dañoo yorulub xaalis wala da ngaa yaakaarul ci ñoom dara foofu rek lay tàggatoo ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh